<laughs> benn ñaareel bi waa opposition bi yuuxu ne moo gañe nag te ñu gañe léegi ñun duñu wax ni ngeen bëgg opposition bu fekkente ne gañe la ñuy wax moom xam nga gañe dafa am gañe am tamit ah, ah déet gañe gañe rek gañe dafa am gañe bi ngeen gañe façon bi ngeen gañe mënoo jóge mënoo jóge ci 125 député dal ci eh, xam nga loolu tamit loolu tamit euh, soxna Yafatou mooy mooy mooy loolu il faut il faut tamit loolu tamit ngeen teg si xam ne affaire la fi woon woon ni na Moustapha mhm. Sénégal day dem compétition. Hmm. am na ñun ma koy def parallèle ak football am na équipe yoo xam dañuy gagné coupe d' Afrique ci quatre-vingt-dix minutes yi yaa ngi dégg mën équipe bi dugal deux bi wala trois am ñoo xam ne dañuy dem ba tiro bi après kuy jël coupe bi. kiy gagné mooy jël coupe bi. Ah, dugal si 90 minutes yi ak ki gagné au tiro bi ñoom ñaar. Euh, gagné si bopp nag prolongation lañ dem est-ce que li muy li muy li defal ndànk rek man xam nga li ma la dafa leer. ba ñu yokk temps supplémentaire ba dem tiro bi ñu door a départager ñaari équipe yi loolu dafa bokk si règle du jeu. du dëgg si règle match bi la. Mm-hmm. ku gagné jël na coupe d'Afrique wala jëlu ko. da koy jël da koy jël ki gagné ci 90 minutes yi avec même 5 buts à 0 contre son adversaire lu mu jël du Coupe d'Afrique mm. c'est terminé est-ce que réalité Coupe d'Afrique 2020 2022 ce sera la même réalité en 2024 wala réalité bi réalité 2020 Coupe d'Afrique 2020 ak Coupe d'Afrique 2022 ñoo bokk réalité. yaa Fatou ma lay wax. Euh, bokkuñu réalité dama lay def parallélisme. non non exemple exemple bu baaxul parallélisme boobu du jàll. exemple baaxul de baaxul de. xam nga lu tax du jàll. Mm. parce que boo jëlee match football. Mm. na ma kii def ki gagné ci biir match bi ak ki gagné prolongation yëpp gagné gagné la. Mm. mais fii li nga nombre bi nga gagné day compter parce que da nga koy soxla après match bi. xam nga li ma la bu ngeen demee assemblée soxlawuñu ko score bi da nga ko fay soxla soxlawuñu ko si soxla ngeen ko yéen a ngi nii tey ji doon Pape Diop pour mu ñëw ngeen ma doog a matal waaw xaaral ma expliqué a du ndam li war a cëkk xaaral rek ma expliqué man li may wax dafay dafa leer dama la defal parallèle par rapport au match bu ñëwee ci élection législative élection législative mooy peuple sénégalais dañu war a tànn seen ndaw ya ñuy yóbbu assemblée nationale lan mooy rôle assemblée nationale pour président de la république bi nga xam dañ ko fal jox ko prérogative mu nommer un gouvernement jox ko prérogative mu définir la politique de la nation dañu bëgg kat yéen ndaw yi nga xam ne ñu ngi leen di yónni assemblée nationale ngeen xoolal ñu ndax kooku noonu ñu jox yooyu yëpp yoon pour suñu jëmikaay réew ngeen xoolal ñu li muy def ndax mi ngi tegu ci charte ndeyu réew mi walla tegu ci loolu mooy assemblée nationale c'est pas un contre-pouvoir du leneen léegi nag ndaw yi muy yónni ca assemblée nationale mais peuple bi mooy tànn jox naa président Macky Sall réew mi bu ko neexee mu ne léegi ku jege dama leen di jox nangam bu ko neexoon sax mu jox ku jege li ëpp. man naa leen man je suis convaincu que président Macky Sall bu ñu joxoon ku jege li ëpp sax il serait plus à l'aise dëgg la wax loolu mais man nga wax ko ci seen euh, conférence de presse bi ngeen doon bërki dem ba seet ba waaye man dama yaa Fatou xanaa añul balaa moo ñëw damaa añ ba suur te añoo boo añoon doo wax loolu yoruma yow président Macky Sall li ko majorité jaraloon ak li mu ko jaral yow yaa foog loolu président bu ko majorité jaraloon kaay ma expliqué bu ko majorité jaraloon xam nga lu muy def jóg dugg ci campagne bi non munu cee dugg ah jot jot na cee barastiku de. nu mu see barastiku dem na ndar. nu mu nu mu si dem na ndar. ak aéroport inauguration inauguration aéroport bi euh, bu ñu fay. bu ñu teg non mais loolu bu dee def loolu pose première pierre lu war a démarrer la. ay hmm. bailleurs de fonds yu war a ñëw travaux yu war a commencer loolu jotewul dara ak campagne. loolu jotewul dara ak campagne mais mënu woon bàyyi campagne bi mais lu tax campagne ba pare. damay laajte am na loo xam ne boo ko defee day nduru campagne. day nduru fu mu génn ndiiraan bi topp a continuer liggéey loolu mooy démocratie muñ réew mi moo ko sant ba pare réew mi am ay urgence du moom muñ man li ngeen may demander man comprendre ma ko. mais bu campagne jotee mu génn ci xam ne bokku ci. parce que ci biir campagne bi est-ce que dañu interdit ne président de la République waroo liggéey ci période campagne bu dee dañ koy jox congé kay nañ ko bind ci texte. non loolu campagne déguisée lañ non nañu wax ne déedéet yéen yéen a am ay interprétation mais président Macky Sall liggéeyam lay def. liggéeyam lay def il faut ñu def la séparation entre le président de la République élection wéy na les députés et seen élection wéy na maires yi wéy na députés yi ñëw nañ wéy nañ. député yi nag ñëw nañu wéy ñi lan moo tax ñu doon tànn député pour benn mission bien définie boo xam ne askan wee koy joxe man li tax ma ne la président Macky Sall bu opposition bi amoon majorité du ko déranger centimètre il serait plus à l'aise parce que xam nga lu tax daf ma leer ba leer ni président Macky Sall du indi assemblée nationale loo xam ne député dañuy am lu ñu siy rejeté man daf ma leer man. dama lay def exemple rek moi aussi je suis maire mm-hmm. je préside conseil municipal boo xam ne j'ai des opposants dans le conseil municipal. mais musuma leen indil projet boo xam ne rejeté nañ ko parce xam nga lu tax lu ma leen indil dañuy xam ne lii njëriñu ngàcc naw de la dañ ciy ànd. mais démocratie lañ nga a doxal politique nag xam nga boo nekkee opposition la wax dëgg yàlla kenn sant la pour nga doxal politique réew mi nag. waaye mhm. su ko ah, nit ki su neexee nit ki mën nga koo joxe. boo amee bëgg-bëgg ci dara ci moo laa dama ne. soo ko joxee soo ma joxee say proposition man la ñu dénk pour ma diriger danga may jox say proposition nga bàyyee ma prérogative nag ma tenir compte de tes propositions ou non parce que man la ñu fal nag man maay diriger. mu yow moo taxoon ngeen soxla majorité bi mu jaral leen lu ne tamit loolu déedéet déedéet ñun jaraluñu woon lu ne dañ dem élection de façon démocratique ñun dañ dem élection non il faut comprendre ay si jàmbur fii bloqué fële def nii waaw mais léegi yéen da ngeen bëgg wax ne administration sénégalaise ku nekk au pouvoir la fi nekkal mais mosu fi am tamit li li am nii kon pourquoi mu am ay alternance ci suñu réew nañu honnête toujours tout te respecte suñu administration bi nag yéen mais li fi am administration bi yàgg na fi moo fi mos li ñu li ñu gis. nii nii élection mos na fi élection am na bi am bi am ci assemblée. non même sax ci parrainage bi ah ñu ñoo xam ne si nii tey eh, ñi nga xam ne ci ñoom war a saytu lool dañuy comme comme si dañ lay bëgg a génneel ay fautes pour téye la pour bloquer la alors que dañ leen war a accompagner. pour ñu mën a dem naka lañ la mën a génneelee fautes boo deful. dama leen di laaj naka lañu mën a génne leen nit faute bu mu deful nit nag boo defee faute da ngay nangu ne yaa def faute génne luñ fi kenn faute bu mu deful liste nationale. Hmm. yeewi xaw ma ni ko yeewi la xaw ma. yeewi askan bi. dañoo def seen faute ñu ne leen bokku leen. yéen aussi ngeen def faute. ñu def faute ñu ne bokkuñu. mais normalement liste yëpp ñaar liste yëpp benn waru woon dem ñaar liste luy loolu ñaar liste benn war dem pourquoi. c'est-à-dire ngeen de bàyyi titulaire mu dem bii ngeen bàyyi suppléant mu dem alors que suppléant ak titulaire dafa war a ànd. Euh, man de ñaari ñaari liste yëpp bi bu nekk dafa war ak euh, ak man du ma constitution mais c'est la première fois ñu gis benn liste boo xam ne si ni euh, la am man du ma je respecte l'institution le conseil constitutionnel. Mmh. ndax conseil constitutionnel bu ne nañ dem tey jii victoire pseudo victoire bi ngeen di repos bi ngeen di bi ngeen di bi ngeen di revendiquer. Mmh. conseil constitutionnel boobu ngeen di wax nii moo ko validé te nangu ngeen. mais am ay recours eh, néew nañ dañ danañ yóbbu recours doon est-ce que def nañu recours doonte mu jëw ñoo yóbbu waaw ma ne est-ce que def nañu recours loolu ñoom décee de ñoo la si mën a toog ah waaw defuñu ko xam nga mm-hmm. mais dama ne victoire bi ñuy revendiquer ñoom pseudo victoire bi ñuy revendiquer ba wax ne non ñoom ñoo gagné dañu war dem cohabitation ñoom nangam ak même sudu loolu yëpp amu ci mais ils se disent que l'opposition à 83 l'opposition dans la partie euh, théorique parce que y a Benno et les sept autres qui se réclament qui disent qu'ils se réclament de l'opposition alors que moi je suis pas d'accord mm-hmm. dinañu revenir ci loolu résultat yi ñu am bañ leen ne yéen a gagné Dakar dañoo ne waaw jóg jubile et conseil constitutionnel boobu moo validé loolu waaw ah, léegi conseil constitutionnel bu defee leneen ñu ne du noonu mais loolu mooy lan. d'accord on est dans de l'enfantillage. d'accord résultat yi politique day neex nga nangu mu naqari nga nangu politique da ngaa war a wax dëgg. nangu dëgg muy metti nga nangu dëgg gi muy neex nga nangu dëgg gi. Hmm. d' accord yéen yéen a mais gis nañ ne Pape bi mu ñëwee ci yéen yéen aussi yéen a ngi jubilé ah. benn député la ñu bëri jàpp ne sax si on fait partie des faiseurs de roi comme ni ñu koy comme ni ñu koy waxee. mais gis nañ ni ñëwam daal euh, kontaan ngeen ci trop parce que tamit euh, xaw na maanaam basculer balance bi tuuti ñoo ngeen xaw a am benn poids bi. à l' assemblée nationale. waaw président Pape Diop dañ koy dama man personnellement dama koy félicité. parce que tey jii ñun ñi nga xam ne ñoo topp ci moom ci wàllu politique maanaam gën ko féete ndaw ci wàllu politique dañu jàngee ci démarche am leçon la parce que man dama jàpp ne président Pape Diop dafa jouer rolu arbitre parce que fi may di ko féliciter au passage euh, élection législative politique <coughs> c'est l'art de savoir dialoguer de savoir discuter de savoir trouver des compromis pour l'intérêt de la nation loolu mooy politique politique du noonoo politique du wane ni maa mën a siisu ma ne leen benn affaire. du jaay doole tamit du jaay doole mosu leen gis kuy siisu ba réussir man siisukat bu réussir si àddina mosuma koo gis te du am it àddina du fu ñuy siisoo àddina nit ku ne nitay garabam boo bëggee dem ci àddina foog ngay wax ak nit ñi yaa ngi dégg. président Pape Diop dafa dem élection législative ñoom mooy li ma doon wax sànq ne leen je mets entre parenthèses les sept que ñu qualifié de l'opposition man d'accord ma si ñu qualifié leen de l'opposition lu tax xam nga lu tax y a une opposition radicale y a une opposition modérée y a une opposition de contribution. kon kon da ngay jox ñoo xam ne Macky moo leen financé. mais du dëgg du question fak Macky moo leen tey jii ñu ngi doon wax Macky moo président Macky Sall moo leen financé waaye bañ pare daf leen lu mu leen wax ñëw leen ci ñun. il faut être sérieux et constant dans la démarche et respecter say nawle settu yooyu man boo gisee man la bokkuñu ñoom ñëpp type de position bu ñuy incarné mooy que bu doon ñoom ñëpp ñëw bokk type de position bu ñuy incarné kon ñoom ñëpp dañuy dem yeewi wala dem wàllu moom réeroo ñoo xamante moom set yooyu moom am na si ñoo xamante ne moom wax dëgg yàlla moom ni ñuy opposé opposé wu ñu bawuñu waaw léegi li ma bëgg a xam mooy est-ce que réeroo ak président Macky Sall ndam la ñàkk réeroo ak président Macky Sall gàcce la wala lan loolu laa bëgg xam ci réew banku boo nekk opposition da nga xam ne opposition nga nekk waaw ñaareel lii laay wax léegi la politique n'est pas l'art des rigidités. du rigidité. c'est la rigidité parce que yow boo mënee soit da ngay ànd ak président Macky Sall wala àndoog moom politique du loolu. politique du soit c'est blanc ou c'est noir politique dafa am marron dafa am blanc noir jaxase. dafa am mais nuance boobu day indi confusion. amul benn confusion parce du xam fu mu lay classé kenn du xam fu mu nag fu ñuy classé xam nga politique lu ñuy am. politique lu ñuy am. politique xam nga lu ñu lay laaj la pertinence ak sa engagement pour sa développement réew loolu lañ lay laaj mais politique du ay classement du ay tiroir yu ñuy dugal nit ñi loolu du politique France nga ne gis ngeen ko bi ñu demee élection y a eu plusieurs camps par exemple je donne l'exemple y a eu plusieurs clans parce que ñoom ñoo am démocratie boo xam ne méngoog suñu bos Amérique ñaari parti fa am France y plus y a eu plusieurs partis yu dem ñëpp dañu demoon contre contre Macron ba ñu demee ci deuxième tour dara desul lu dul Macron ak ak Le Pen ñi contrôle Macron ci premier tour dañu dem ànd ak Macron Macron gagné toogaat léegi dañu waroon siisu ñooñu pour bay France mu dugg ci gudda foofu nag c'est le la démocratie mooy loolu le peuple sénégalais le Sénégal en général mooy le centre de la politique c'est pas des débats de personne président Pape Diop loolu la def dafa dem élection ñu sur discours am ñu tabb ko député parce que ndawi réew ñi ñëpp mënuñu jóge ci benn camp il faut ñu tas. wax nga ko léegi ci discours am la demee ñu tabb ko député. waaw discours boobu tey jii ñëw doon laaj seen i baat. bu leen noonu bu ngeen ma jox samay baat ñu ko jox. waaw léegi est-ce ko jox yow wóor na la ne duñ ko ko jox. duñ ko ko am liste am liste ah fas ci wér gi Pape Diop ñëw am liste ah, ah, am loxo am kii bi waaw nag neex na xam nga kaay wax en politique nit mu ngi voté parce que yaay faatu laay voteel nit mu ngi voteel yaay faatu parce que Mahfous nit mu ngi voteel yaay faatu parce que euh, Moustapha en politique c'est ça man am na ñoo xam ne au niveau de naw de dañ may voteel parce que yaay faatu la am na ñoo xam dañ may voteel parce que sama premier adjoint bi ma àndal am na ñoo xam dañ may voteel parce que sama deuxième adjoint moo tax kon yow na tax nga mën a wax ne ñooñu votel Pape Diop bu leen waxoon day dem Macky Sall du ñu ànd ak moom. waaw mais xam nga dafa am liste dem.

defuñu pour kuy dem jàppale président Macky ak ku dul dem jàppale président loolu du objet émission bi du objet élection bi xam nga lan moo doon objet élection bi kan moo kan laa bëgg man sénégalais mu dem toogal ma ci penc ndaw yi réew ña juróom-ñetti liste moo am Pape Diop mooy tëdd liste bi balaa kenn di dugg Pape Diop njëkk dugg bu dugg di am kon man Pape Diop laa bëgg mu dem toogal ma assemblée Pape Diop xalaatam ak xelam moo ma doy. d'accord nit ki nag xalaatam ak xel du discours am moo ma doy de. xelam ak xalaatam moo ma doy. ci ci lay bokk nag. parce que discours mooy mooy xeli xel ak xalaat. xaar wax la discours mooy xeli xel ak xalaat damay wax dama ne. Hmm. ki ngay yónni pour mu demal la toogal la assemblée xam nga la ngeen waxante yaag moom ba nga yónni ko est-ce que moom bu demee assemblée loolu la fay traité traité wu lool de la ngeen waxante lam la wax ci campagne bi. ay Macky Sall def fi lii Macky Sall il faut ñu taxaw assemblée il faut mu am nit ñeneen ñu ko mën a contrer nangam nangam nangam nag loolu yóbbu bu demee assemblée duñ ko tegal ay kayit yoo xam ne loolu lañ ciy bind. ay budget lañ koy tegal ak i loi ak i leneen loolu nag xarañteem moo koy atte la la fay toogalee yow loolu laa bëgg a wax ci xarañte boobu nag bañ ko tàmbee tabbee mu war a xalaat nag en tant que sénégalais xalaat pour le Sénégal en général mu ne ñu di ko bëgg dugal ci politique bi mooy effet placebo bi may wax garab gi nga xam ne du fas yéenewul faj te du faj dara ñu bëgg koo jaxase dugal ko ci politique bi Pape Diop ne balaa lii di màgg naa ko freiné ma won leen déjà man lan moo ma soxal guerre ci assemblée nationale intéressé wu ma takku ba dëgër fas yéene jàkkaarloog Macky Sall na damay ak moom loolu intéressé wu ma li ma intéressé mooy suñu réew lu ñëw assemblée te mu nekk njëriñu Sénégal mu mën a jàll facilement pas ay siisu parce que siisu bi da doon am élec hémicycle yi passé da ngay gis bu ñuy voté da nga fa ridicule sax bu ñuy voté budget dañuy ñëw en commission ñu débattre opposition joxe seen parole bu vote jotee parti au pouvoir yëkkat seen loxo opposition toog bu ñu nekk ku ci àndul opposition yëkkat loxo mais ça va pas non. mais am nañ ci droit mais non mais attends dafa ridicule parce que budget boo xam ne non amoo ci droit parce xam ne ngay d'accord budget bi da nga ñëw ñu voté ko ñu étudier ko en commission dañu ko présenté ministère des finances day def un mois xaw ma deux mois assemblée nationale di leen faram fàcceel pièce par pièce lu ne ñu tegal la lan moo tax ñu def lii lan moo tax ñu def laa loo ci comprendre nga laaj ko ñu expliquer ko ba mu leer naññ il faut être honnête il faut être honnête loolu mooy liggéeyu député gis nga député kenn deful dara ci seen ginnaaw avant ñuy dem en commission même ministre bi ñëw di présenter direction générale du budget ak ministre des finances dañuy dem dëkki assemblée nationale am fa weer ak lu topp teg budget bi ligne par ligne député bu ci comprendre nga laajte lan moo tax montant bi lan moo tax lii ñu expliquer la ko ba mu leer boo ci amee loo cay wax nga wax leen ko ñu expliquer la ba mu leer lu ñu mën a soppi dinañ la wax ne lii mën nañ ko soppi lu ñu mënta soppi dinañ la wax ne lii mënul nekk wax la nag li ñu jël décision yi jël fu ñu ko teg loolu mooy député boo demee en commission ministre bi ñëw nga ne ko madame le ministre dafa am beneen deuxième arbitrage madame le ministre dafay dem ah, miss ministre bi day dem arbitre ci ni mu koy séddalee ci département am bu demee ci département am day am ay programme foofu la député yi amee sañ ñëw ne ko madame la ministre ñun de ñu la doon wax programme sàngam bëggoon nañ nga gën ko dooleel parce que moo gën am impact ci population yi programme sàngam de bëggoon nañ nga gën ko dooleel programme sàngam nga gën ko dooleel ñu wecconte xalaat lu ci mën a nekk madame waa directeur du waa direction budget ñu ngi toog ne ko lii mën naa ne lii mënta ne lii mënta ne lii mën na ne ñu conclure buñ demee en plénière ñu ñëwaat ku ci ànd ñi waa parti au pouvoir yëkkati ku ci àndul waa opposition c'est ridicule daal moo lay déranger non déranger wu ma déranger wu ma mais dama leen loolu du seen mission waaw dañuy des assemblée la ñuy des mais Pape Djibril Fall moom nee dafay des ci position am ci déclaration bi noonu def position député lay des maanaam dafay nekk non inscrit loolu dañu xam ne mënuñu ko ko am <laughs> non man de wax dëgg yàlla euh, bi ma seetaanee vidéo bi léegi dama am euh, bon je tu vois je respecte hein, les positions des gens mais je dis que ça c'est de la peur politique Pape Djibril Fall bëggoon pose ba bëggoon ba day politique dëggantaan mm. li mu jël du décision en politique amul ragal. mais non ah, inscrit tamit camp la moom moom wax léegi ne politique du du du du mu weex tàll wala mu ñuul ko bu ñu dugal ñu say dama ne. mais yow tamit boo ko dugal si tiroir. non dugaluma ko mhm. mais man dama wax xam nga da ngeen ma laaj sama avis man. Mhm. dama wax ne man su ma nekkoon place am boog ça ça moom je me permets. Mhm. de de mais vraiment il a le droit dem ne no un inscrit lay dem ça il a le droit mais man de bu ma amoon âge am âge bi ma am mu am ma nekk ci politique ci ni mu ci nekkee nii.

ah lu leen si wóor. non parce que troisième mandat constitution bi réglé na ko ba pare. no non non ñu ngi ci deuxième mandat deuxième quinquennat la ñuy aborder en 2024. ah déet yéen Barthélémy opposition bi ngeen di. non mais Barthélémy du constitution. bi Barthélémy Diaz du constitution bi. waaw nañu xaar ba conseil constitutionnel. yéen ngeen bàyyi fi constitution bu ñu la wax ngeen indi ñu Barthélémy dama ne xam nga ku nekk da nga jox sa avis. yow fi ne doo constitutionnaliste. man duma constitution ah, mais tamit dégg mais dégg nañ tubaab te mën nañ lire aussi li nekk ci constitution bi xam nañ nga dañ ne ku sa wujju xam nga man boo gisee ma indi Barthélemy Diaz uh-huh. su ma waxoon keneen ci suñu parti danga naan li ngeen fara tax mais dañ naan ku sa wujju di sëlam doo set damaa uh-huh. indi suñu wujju xam nga waxu wujju moom si wujjam wax dëgg yàlla nit da ko war a gëm parce que wujju bu wax ne sama wujju kat rafet na wax dëgg yàlla war nañ gëm ni wujju bi rafet na mm. ndax bu rafetuloon du ko wax du dëgg parce que amu ci benn intérêt Barthélemy Diaz si moo toog nii président Macky Sall ci constitution bees bi mu ngi ci premier mandat de cinq ans constitution bi xamul mandat wu sept ans mandat cinq ans la xam deux mille 2024 dafa am droit briguer deuxième mandat de cinq ans loolu nag wax dëgg yàlla ku naxul sa bopp te nga jàng mën a liir tuuti war ngaa xam ni constitution li mu wax loolu mooy dëgg. lu mu wax nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. waaw kay Macky Sall def na benn déglu leen ma rek déglu leen ma rek. constitution du nit. Hmm. constitution texte bi du nit. mais xam nga texte. waaw attends rek. esprit la waaw moom la expliqué moo tax nag. bu lettre bi indi confusion da ngay dool ci esprit ba. te ki ko bindoon esprit ba lan la. loolu taxoon na Ismaïla Madior Fall mi ko bindoon sax moom. loolu xam nga texte bi mënul am troisième mandat. texte bi texte dafay leer. Hmm. texte mënul invoqué constitution bu bu ren constitution bu. Euh, 2016 2016. révision constitutionnelle. voilà mënul invoqué constitution bu Ablaye Wade defoon xaw ma lan deux mille. deux mille un xaw ma constitution 2001 ba tey la la révision bi la xam nga bu ñu ko réviser. Mhm. ça veut dire que dañu am constitution bu bees. parce que lañ ci réviser moo soppeeku ca 2001 ba. d' accord nañ waaw moom laa dama ne. xam nga texte yooyu dañ koy bindaat. mais dafa am lu ñu changé. la ñu changé moo tax niroowul ak bu 2001 bi moom laa bëgg a wax du dëgg. on est d' accord. d' accord constitution bu 2016 bii ta wax ci mandat wu 7 parce que moom xamul luy mandat 7 ans. mandat cinq ans képp la xam parce que dañ si bind si biir le mandat. Mm-hmm. le mandat et pour une durée de cinq ans nangam nangam nangam nangam. donc nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs mooy mandat cinq ans consécutifs lu ko ëpp mooy foofu nag la ñu poser la question troisième mandat xaaral rek léegi nag fii fu ñu fiy yeggee mais wax dëgg yàlla ngir yàlla bàyyi leen conseil constitutionnel ba ñu ci yeggee conseil constitutionnel wax mais honnêtement eh, eh, eh. on ne dise parce que Barthélémy Dias moo njëkk wax ne ñoom ba ñuy dem ci ab Ablaye Wade président Ablaye Wade di wax ne dafay briguer troisième mandat xamoon nañu pertinemment que président Ablaye Wade amoon na droit troisième mandat dañ doon bëgg a influencer peuple moo tax ñu ne troisième mandat ça c'est malhonnête te loolu bu ko sénégalais yi fàtte bu leen kenn dugal ngeen ñuy dem di dee ci ci ci ci ci ay manifestation parce que ku ci dee say waa kër ay perte un point un Sénégal day continuer ñoom ñooñu deewuñ ci ndax ñu ngi carte ëllëg lu ñu mën a am ak lu ñu mënta am kon bu ñu dugal nit ñi bu ñu nax nit ñi aujourd'hui la constitution sénégalaise na connaît qu'un mandat de cinq ans. li lii le président Macky Sall est à son premier mandat de cinq ans. il le fera dina représenter ou du représenter wax dëgg yàlla paaka du jiitu nit ci mbaram. c'est pas le président qui choisit sa candidature. Le président appartient à une coalition. Et l'architecture de la coalition est là. Et la coalition Benno Bokk Yakaar ira aux élections présidentielles de 2024 avec son appareil, quel que soit son candidat. D'accord mais nooy jàggatee waxi Macky Sall ci troisième mandat bi mu ne euh, en 2019 bi mu bëggee ñu fal ko dafa taxaw mu wax ne man mandat bi ngeen may fal ni bii mooy sama premier mandat bu ngeen ma falatee en 2019 mooy sama deuxième mandat donc man pare naa ci waat ko mu ne ay affaire de troisième mandat kenn du ma ci eh, kenn ma ci xaar kenn du ma ci fekk. Mm. nan ngay jàngate waxu Macky Sall boobu comme ni nga def ni nga jàngate waxu Barthélémy. xanaa gëm ne li mu wax noonu rek moo nekk ci moom léegi nag xam nga damay jox exemple président Macky Sall ba mu ñëwee ci mandat sept bi dafa waxoon ne dama bëgg an wàññi sama mandat te loolu moo nekkoon ci moom. loolu la bëggoon. il pouvait le faire. il peut pas. si il on peut a anticipé élection yi. il il pouvait pas mënoon na anticiper ah déet pour respecter kàddoom pour respecter kàddoom. booba nekk bu ko nekkoon mu mu anticiper élection yi. mais président Macky Sall ko pour mu respecter kàddoom xam nga lu mu ko mm. pour mu kàddoom dafa am solo nag. non non non déglu ma pour mu consolider suñu démocratie xam nga lu ma suñu démocratie. Mm-hmm. respecter suñu charte ndeyu néew lu mu wax. respecter suñu calendrier électoral loolu lañ ko fajee loolu lañ ko falee mais imaginez un président buy. buy avant changer dal élection pour tout simplement apaiser sa conscience yéen le président boobu ngeen bëgg ça veut dire que le président il peut faire ce qu'il wax buy wax di def di di respecter kàddoom loolu ñu bëgg xam nga lan mooy respecter kàddu président parce que kenn kenn bi wax ah moom la neexoon mu toog ba mu neex rek mu ne damay wax ne kenn forcé wu ko déedéet bi muy wax ne damay fa waa mandat bi suñ ma falee dama bëgg ñu wàññi mandat bi au def ko 5 ans hmm. boobu nekkagul président boobu bi ñuy campagne la la ne nekkagul boobu c'est boobu c'est monsieur Macky Sall président de l'alliance pour la république il faut pas confondre ak Macky Sall bu toogee nekk président de la république xam nga lan moo ko tënk la constitution du Sénégal ba mu ñëwee toog ne man de waxoon naa ca ba may campagne damay wàññi mandat bi def ko sept ans il a écrit au conseil constitutionnel parce que moom moomatul réew mi moomul Sénégal ba mu bindee conseil constitutionnel conseil constitutionnel ko mandat bi moo moo ko peuple bee ko moom. mënoo wàññi mandat bi. te constitution may na ko mu anticiper mandat mu anticiper. Euh, euh, waaw léegi anticiper élection tout simplement parce que apaiser sa conscience. non man loolu d'accord ma ci. léegi nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ. yow d'accord loolu loolu sax parce que beneen kii nga démissionner après. après mais mais mën na ko def. mais ah, mën na ko def mais lu ko def lu tax respecter constitution nekk ko ci fekk. dara fekku ko ci. xam nga lu ko ci fekk xam nga lan moo ko ci fekk. Uh-huh. dem mandat sept ñëw 2019 sénégalais mais troisième mandat bi xam nga fan la ñu mën a yóbbu ci ci wàllu wàllu dal ak